et des bas na né ne loolu moy tax ñuy gën di progresser boy xol équipe bi mu ngi yegg en puissance mm. malgré quelques déchets que certainement le staff technique va régler su ko defee ñu dem mën a taxaw mën a daje Burkina fekk ñu nekk à 100 pour cent justement Burkina boobu sax euh, est-ce que message bi fi ne nii gars yi dégg nañ ko pour mën a affronter bu baax non xale yi am nañ benn bés de moyen hein. dama la ne xale yi boo fekkee tey balaa ñuy dugg ci match bi discours biñ tenir ci seen biir nga xam ne kan gënu leen a bëgg ndam donc loolu dañ leen def confiance xam ne dinañu xeex dinañu trouver solution